AFT TV أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم ومقاد للأمان الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا العدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي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 tàmbalib liggéeyub sëriñ bi ci euh, liggéey gi mu liggéeyal sun borom tabaraka wa taala liggéeyal ko yonent bi ba waral bis bi ñu jëm mu woote woon ne nañ ko ci santale boromam ndax mooy tàmbalib liggéey bi mu mel ni démb am na fu ñu yemoon ci euh, waajtaay bi mu nekkoon di ko waajal sun di ko waajal liggéey bi kon tey dañuy xayma lenn ci liñ mën a tënk ci sababu tukki bi tukki bi nag dafa mel dafa am sababu waaxir am sababu baatin sababu baatin bi moom la ñuy njëkk a wax li nga xam ne ni mën nañ cee tenk tuuti ndax buñ demee ci téerub Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana muy Irwa na Nadim dafay wax ne sun euh, Sëriñ dafa wax ne muy passe 32 euh, i'lam bi anna alladina taallaqu biya lawla taalluquhum bi la daxalu naara baxda mawtihim walaw muddatan qabla duxulihim aljanna allati wucida almuttaqun wa sababu xaybati albaida an allah tabaraka wa taala araada fi l azal an akuna shafian li jamihi talaamisati wa xaala bayni wa bayna annasara wa adxala fi qulubihim alxawfa minni wa faalu ma faalu li alla akuna mutanassiran li anni law tanassartu la daxaltu nnaara wal iyaadu billah loolu def ciy tënk ne na ngeen xam ne kat yéen ñi aju ci man bu fekkoon ne ajuwu leen ci man da ngeen tàbbi sawara doonte ab diir la sax bala ngeen dugg ajana boo léegi faaw ngeen tàbbi wara daana li sabab sama tukki bu sori bi nag sun borom moo bëggoon bu yàgg ma ràmmu leen ci loolu waaw kon loolu ak leeral sama digganteeg tubaab bi waaw ba tàbbal ci seeni xol ñu ñu ñu ñu ak ragal looloo waraloon ñu def lañu def ak ma bañ nasaraanu ndax bu fekkoon ne nasaraanu naa de kon danaa dugg sawara moom jëm boppam loolu la waxaale waaye nag mu ne ci daraje yonent bi suñu borom musal na ma ci loolu moo tax sëñ Moussa Ka di wax ne nee dogoon ak dem gi walaf nasraanu te kon billahi ñëpp dem niraanu kon loolu bokk na ci li sabab tukki bi ci wàllu baatin bokk na ci itam sëriñ bi lu jiitu muy dem daana ko ay nit sëriñ mo Cheikh Modou Basir nee na euh, sëriñ bi bi nga xam ne bind na muqaddamatul xidma ba noppi bi ko bindee ba noppi nee na nag gannaaw téere bi noppi na nag am na liggéey beneen bu ci toppaat boo xam ne day laaj génn ba tey ci Minanul Baaxil Xadim nee sëriñ Xamsatu Jaxate nettali na ko ne am na bis bàyyi sëñ xam Xamsatu ci boppam ñëw ci sëñ bi di ko siyaar si sëñ Xamsatu na booba sax du mag waaye lam jot dégg ci waxtaan wa sëriñ bi daf ko wax ne ko dafa am tukki bu may waajal waxoon dama ci waaj a dem jamono boobu nag dafa fekk sëriñ bi di waaj a tukki eh, Mbacke Bari ngir toxu Touba mu ne ko xanaa mooy tukki bu may dégg nañu ne yaa ngi koy waajal ngir dem Mbacke Bari mu ne ko du boobu sax de bii te beneen la boo xam ne nii moo gën a sori te gën a yàgg waaye taxut euh, mu xam tukki ba mu koy junj dëgg-dëgg nga xam ne kon moom lu jàppoon la bokk na ci li koy wane it ñi ko doon jël si ci mbàkki baare bañ ñëwee dañoo fekk mu waaj bana jog kon nag loolu bokk na ci tukki bi nga bokk na ci sababu baatin bi moom la sëñ Musaa di way naan sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafixan li xawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi bu dee sababu zaahir bi bokk na ci li waral ñu yóbbu ko muy sëriñ bi bi mu wootee li mu woote ci Mbàkke Kajoor ci at yooyu rek maanaam ñi ëppoon doole ci réew mi muy jaraaf ji ñuy wax Lat Joor te nekkoon Kajoor dafa ñëw jébbalu ci moom maanaam ñëw jaayante ak moom sëriñ bi ne ko lii de boo ko defoon bu yàgg ba tey defal naa la lu gën li mu ne ko li ngay wax de werante wu ma ko waaye nag kajoor gépp ànd ak man di xeex ma xëy xëy ne ñëw naa ci yow bàyyi naa xeex bi daal sama ngor mayu ma ko dama bëgg lépp loo may defal muy ëllëg sëriñ bi daal di summi am jox ko wax ko ay baat yu wax keroog lañ ko rey ci deqali Alburi Njaay tamit daal di ñëw ci moom bu jolof daal di jaayante ak moom sëriñ bi wax ko lu mel ni la mu waxoon Lat Joor moom it mu wax sëriñ bi lu mel ni la ko Lat Joor waxoon ne ko nag la dalee ci njaajaan njaay ba agsi ci man du ma nekk jolof gépp nekk ci sama gannaaw ma leen di wor loo may defal ma nay ëllëg te man sax damay génn réew mi ca la gàddaayee dem Niger bi tubaab yi gisee nag ne ñi ëpp doole ci réew mi ñu ngi koy ñu ngi jaayanteeg moom di ko jox seen bopp ña leen toppoon nit ak seenu njaboot ñëw nañ ci sëriñ bi loolu influence la boo xam ne nii dafay influencer tubaab yi te it buñ ko dëppalee xeex yi fu njëkkoon a am yi nga xam ne nii lu mat téeméeri at ci gannaaw ay xeex daana am la tàmbalee ci Nasur diin ñëw ci Cerno Souleymane Baal ñow ci Cheikh Omar Fouti Tall ñëw ci Maba Jaxu ba ci Ahmadou Cheikh tubaab yi dañuy daldi yaakaar ne kon kii kat mën naa am day dajale xeex ngir mm, day dajale mbooloo ak ngànnaay ngir jóg xeex na ñooña doon xeexee bi mu ñëwee nag Mbacke Bari dafa fekk Alboury Ndiaye dem tubaab bi daal fay teg Samba be def ko chef de canton maanaam def ko muy ab buur ngir lim doon nguur gi Samba Lawbe itam bi sëriñ bi ñëwee gannaaw waa Jolof ñoom maanaam ñëw gi sëriñ bi ñëw foofa taxut ñu taamu ko taxut mu gënal leen ndax dañoo yaakaar ne kii day wut mbooloo wala day wut alal wala day wut daraja taalibe yi itam ku dégg na ma nga fa ñëpp fax wuti fa ba sëñ Mbàkke ma waxoon mu toog Tuuba ngir ku ñaw yem fa moom sax dafa mujj mënatuloo a téye kenn donte loolu nag mas ta soppi dara ci yitteem jure ji nga xam ne ni moo ko tax a jóg ndax sëriñ bi naka jekk li ma waxoon rek daw nit ak daw li ci loxol nit ñi lu bari fu mas a dem moo ko fa yóbbu sëriñ Basiiru nee na jamono yi Tuubaam yu mujj sax am na bis mu bëgg a julli ci jàkka ji mënta feexa ba julli ndax xëccoo gi ñu xëccoo der bi ku nekk ba ko lal mu ne leen sama der bi rek dana ko mos a yóbbu foo xam ne nii danaa kenn duma ko lalal xëy na ñu yaakaar nday dem màkk wala yu demee noonu waaye fekk loolu itam tukkib géej gi rek la doon junju influence boobu nag bokk na ci li tax tubaab yi wut ay agent secret teg leen fa ngir ñu seet mbirum sëñ bi ñooñu nag ñoo ñoo jaxase sëriñ bi ak tubaab bi